وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين الذي آتاه الله القرآن ومثله معه والذي قال في جوامع كلمه صلى الله وسلم عليه نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها والذي قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل بنى بيتا فاجمله واحسنه الا موضع لبنه فجعل الناس يطوفون حوله ويتعجبون منه ويقولون هلا لا وضعت هذه اللبنه فانا تلك اللبنه وانا خاتم الانبياء والمرسلين وكما نصلي ونسلم عليه نصلي ونسلم على آل بيته الأطهار وأصحابه وخلفائه الأبرار ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن أبي البشر سيدنا آدم إلى خاتم النبوة والرسالة سيدنا محمد وعلى جميع الذين اتبعوه ونصروه وآزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بس بتدل نحن la ndax ñi ko seq te ku yàlla teral loo jàpp rekk sa xel war na ca dal ci ne la nga ca bëgg ci ndam bëgg ko ca ci sag yàlla dana la ko defal euh, yàlla ku yaatu la xatalul daraam sew waaxu waa ku yaatu la yàlla ku tabe la yàlla ku man boppam la yàlla ku ku am sañ-sañ la yàlla ku soxlawul dara la yàlla ku tëlewul dara la yooyu le pouvoir ku ko am mën a baaxe ñépp moo tax du ma ne sax jullit nit rafetal rekk ko jikk yéwénal rekk a ko jikk yaatal rekk ko jikk yal nañu yàlla dimbali ba ba boole ñu ci ñi nga xam ne lu ñu wax foofu lañ ko teg lu ñu jëf foofu lañ ko teg ndax ci la suñu penc mën a jage ci la suñuy nelaw mën a neexe suñu lekk it ci la ñuy mën a yëge lan la saf ma ne yàlla sax waxul jullit waaye dafa ne wala qad karram bani aadam nun yàlla nun yàlla ñoo teral nit kiy dox ci kaw suuf ñëpp dugg jullit bi dugg ki dul jullit dugg waaw ñëpp dugg confession yëpp dugg conception yëpp dugg nit rek ci boppam wala xadd karam naa bani aadam ndax yàlla am na lu muy fàttali nit ñi ci alquran ndax mooy téere bu mujj a wàcc te beneen téere dootul wàcc ba ba àddunay tukki kon boog war na làmb luy yëwanal dundu doomu aadama ci kaw suuf di yëwanal suuf di yëwanal nature bi ba ba muy soob yàlla mu taxañ suuf comme na mu ko waxe ci alquran alkarim yowma natwi samaa ka tayyi sijilli lilkitab kama badana awala xalqin nuidu waadan alayna inna kunna faailin ba ba muy soob yàlla rek mu taxañ suuf ñi fi nekkoon ñépp jóge fi mu yóbbu ñu feneen feneen fa bu mu ñu taxa nelaw nañ def lu baax sax ci lu baax jox yàlla li mu moom toog ci position bi ñu war a tooge jàmm ne ñooy suñu digganteeg suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn saxaabi bu toog ak moom di muaz ibnu jabal yonent bi posé ko benn question ya muaadu atadri ma xaqu lcibaadi ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من مات وليس في قلبه مثقال ذره من الشرك فقال هل لا أبشرهم فقال صلى الله عليه وسلم لا فيتكلوا لا تبشرهم فيتكلوا kon boog ni ñu ko waxee rek bés bi manul lu dul tedd ndax ñi ko sonne taxawe ko ñu tedd lañu teraanga googu yàlla wax ne moom la defal doomu aadama dañ ca dugg yàlla càmbar nit ñi wëlbatiwaat leen tànnaat leen geneenu tànn ci biir ba mu leen terale def leen ñu bokk ci xeetu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummatu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp kuy nekk ci kaw suuf di dox nga yëg ko nga bañ ko yëg yàlla yónni na sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yow religion yëpp dugg conception di dugg idéologie dugg képp kuy dukkat ci kaw suuf ba yàlla ne iqra bismi rabbika alladi xalaq ba ba yi tukki nga yëg ko nga bañ ko yëg mission sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam na la message am lamb na la moo xam nag danga ko nangu walla nga bañ ko su la lambee nag ba pare yàlla boole la ca ñamu làmb te ñu nangu ko kooku it beneen ngëneel la alhamdulillah kooku kon moo tax ñu ne bés bi tedd na ba pare ñi ko teewe tedd nañu tabaarakallahu ku ci nekk ci sa bopp yéene ci yiw wu yaatu ci yàlla mi tëlewul dara te sañ lu nekk man lu nekk mu defal la ko insha allahu taala ci yàlla yàlla leeru mag ñi ak seen mbaax e waxtaan wi nag waxtaan wu gàtt la waxtaan wu gàtt la ndax yàlla ko gàttal ndax ñu noppalu moo di e, dund doomu aadama nan la ko yàlla gisee moom mi bind ndax yàlla dafa indi nit ci kaw suuf ndax mu tabax jagal jikko tëgg doomu aadama defar péncam wala yàlla def ko indi ndax mu nekk rab comme rab yi di toj wala muy màbb wala muy yàq ak it ndax it interrogation bi yàlla def ne afa man yaxluq ka man laa yaxluq interrogation bu rëy boobu yàlla bind ne ndax bi yàlla posé nit ñépp ku ñëw tontu ko dem tëdd ca barsax di xaar sa yeneen i moroom ñu tontu ko fekk la fa yàlla di doxal àdduna ci anam yamu ko soobe ba ba àddunay tukki yàlla nee na ndax ci bind war na mën a yem ak bindul ñu dégg ci lu bari man yaxluq ka man laa yaxluq ndax ci bind war na mën a yem ak ki bindul kooku ku toog ci tànt bi war nga ko tontu tontu du lenn la may leen ma ma waxal leen ko yéen ñëpp moo di ne du ñu mën a yem ndax ki bind am na lu mu yëg ci boppam ci kàttan am na lu mu yëg ci boppam ci sañ-sañ am na lu mu yëg ci boppam ci man-man ba su bindee rek sañ na la tëralal yoon wi nga xam ne ca la yëg ne ca lay yëga ne soo ca duggee man ci am mucc tey man ci am mucc ëllëg mou yilou amsono, legi foun yu tolounan l'islam, l'islam, l'islam, dana ka sak da fay dem bamel ne repetisyon da fay am, ki turvi, wi wala tem ji, tem dak trialiteyi, kek ne repetisyon mounou djok ki adouna. Nak mit da fay amou loupes, ou mit, da fay amou loupes, lep loupou fitek rek, moo ko ci la mu utiliser capacité yi ko yàlla yóbbale di xel di xalaat di jikko man koo jariñoo ci objet wala matériel wala matière wala yi nga xam ne la dajeel ci moo tax ba wàllu diine euh, loo xóot xóot xel loo nekk nekk sage loo nekk nekk philosophe am na ay principe yoo xam ne mënuloo ko changer benn yoon bëgg nag ñu naw sa xel walla bëgg ñu yéem sa xalaat ba tax nga waxe ci diine nu yàlla bëggul walla nga waxe ci diine falsifier texte interprété ko neneen beneen interprétation wala nga jox nga vidé ko sens bi nga xam ne moom la ko yàlla jox bëgg ko changé yeneen i xalaat ngir ñu naw sa xalaat dafa mel ne yaa ngi dimbali seytaane ndax seytaane kat dafa am lu mu wax suñu borom tabaraka wa taala dafa ko ne yaa bind nit teral ko mu yiw nga def sa teraanga ci moom sant ma man iblis ak sama njaboot ma sujjootal ko ma bañ nga dàq ma ci sa njëggal dàq ma ci sa yërmande nit kooku nga bëgg mu nekk sa xalifa ci kaw suuf nekk di ki nga xam ne mooy illustré sa sañ-sañ ak sa man-man ak sa capacité yow yàlla ci kaw suuf ba nga waxee inni jaa'ilun fil ardi xalifa comme que dàq nga ma ci sa yërmande man yàlla yow man iblis ak seytaane yi nga xam ne ñooy samay njaboot loolu nga bëgg ci nit dinaa fexe ba doo ko am ne ko nag loolu rek laa bëgg nga may ma ko maag nit ñu seq àdduna ma nekk fi ba fàwwu bañ a dee ba ba àddunay tukki yàlla ne ko may naa la ko muy sañ-sañ bu garaaw yàlla ne ko may naa la ko moo tax ñi naan iblis Euh, malaak euh, malaaka la wala euh, nangam na ma iblisa du du malaaka illa iblisa kaana min al jinni fa fasaq an amri rabbi iblis jinne la nekkul malaaka ndax malaayka yi dafa am ci lu leen yàlla façonné ak nu leen yàlla fu mu leen yàlla doté laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun te it malaaka yi yàllaa ngi leen bind ci leer bindu leen ci safara ah te iblis mi ngi naan yàlla xalaqtani min naar wa xalaqtahu min tiin yàllaa ngeen iblis yàllaa ngi nettali ci làmmiñu iblis naan iblis moo ma ne yow yàlla ci safara nga ma binde te malaaka ci leer la ko yàlla binde moo tax nag combat bi nit kiy mëne ci kaw dundam ak iblis ak ñi représenté iblis ci kaw suuf bari muy combat boo xam ne bu metti la bis boo daanee benn mbër meneen mbër taxaw ci sa kanam dara nga ci manul benn muy jikko benn muy bànneex benn muy alal wala muy bien yi ngeen di tudde bien li ngeen di tudde matériel li ngeen di tudde luxe yooyu la yëpp bu ci nekk dana mën a entraver nit ki ba fa mu bëgg a yegg walla fa yàlla yéene mu yegg fa ci jubóog boppam juboo ki bokkam juboo péncam du ko mën a def moo tax nag ñu bëgg a waxtaane nag ci dundu doomu aadama wala li ñuy tudde bi social nan la ko l'islam gisee ak yan définition la ci joxe ak yan orientation la ci joxe moom l'islam ndax l'islam kat principe rek la ay principe rek la alquran a ngi ni di kaamil euh, di ay conseil yu ci nekk di ay ordre yu ci yàlla joxe waaye ku ñu naan nit moo ko mën a exécuter moo ko mën a appliquer waaye ku dul nit du ko appliquer kon boog retard bu jullit am wala ñu ne l'islam am na ko bu ñu tooñ l'islam l'islam tardewul benn yoon ay jullit ñooy tardé waaye l'islam principe yi nga xam ne moom la indi jikko yi nga xam ne moom la indi njub gi nga xam ne moom la indi képp koo xam ne tënku nga ci ci biir tënku ci ci biti doo mën a am lu dul dund gu teey doo mën a am lu dul société bu jàkk yàlla dogal nag euh, yàlla nee na euh, diversité bi am ci xalaat am ci nature bi wa xalaq naa min kulli shay'in zawjayni yàlla nee na lu mu mën a doon rek paire laa ci def yàlla nee na lu mu mën a doon rek paire la man rekk ma wéet waaye leneen lu dul man rekk ñaar nga kon boog ñu mën ci dégg ne dialogue du fi jóg wuute xalaat du fi jóg wuute gis-gis du fi jóg waaye nag ña ko seq lan lañu ñu war a def moo di dégloonte bàyyente xel ku ci nekk may sa moroom mu wax li mu xalaat wone ni mu gise wone ni mu dégge su fekkee ne ku nekk ka nga seqal wax seq ak moom kàddu seq ak moom jëflante may nga ko fursa boobu walla offrir nga ko occasion boobu jàmm rek kay mën a am insha allahu taala ñu ne nag kon ñu bari ci jullit ñi léegi du ma ne sax ci Sénégal waaye ci àdduna bi jullit lañu rekk ci këyitu juddu walla jullit lañu rek ci aada waaye ba léegi possédé possédé wuñu euh, dëgg dëgg dëgg sens bi nga xam ne mooy moom la ñuy tudde diine walla religion pénétration bi nga xam ne moo war a am ba ñu xam lan mooy religion wala la religiosité at at tadayunu wala ad diiniyatu ba léegi xamaguñ ko ndax yàlla wax na ci alquranul karim walahu aslama man fi samawati wal ardi tawan wa karha yàlla nee na xaw ma yow nit waaye sa environnement nature bi yépp ay jullit lañu nature bi yépp ay jullit lañu garabu màngo gi jullit la ndax fi ko yàlla teg ba léegi wàccagu fa su waree tóor tóor dafay tóor tóor am ay doom ñor ba rag di xaaraat déwén jant bi su waree fenk dafay fenk su waree so day so noor nawet noor su jotee jot na su nawet jotee jot na waaw biddéew bi su waree fenk fenk na su warul su waree suuf suuf na suuf si ba léegi su fekkoon ne suufay joxe meññent wala suufay joxe li yàlla li nit kiy wut ci moom su fekkoon ne suuf rekk la moo yore sañ-sañu boppam suuf dana ne tàyyi na ndax bañ ma dalee wëlbati di dugal gopp ci sama biir fu nekk ñu di ma fa jaar di ma fa jaar di ma labourer di jaar ma fu nekk tàyyi naa du ma joxe waaye ba léegi grain boo am soo ko sànnee ci suuf yàlla ne suuf joxeel gaaw waaw walahu aslama man fi samawati wal ard tawan wa karhan alam tara an allaha yasjudu lahu man fi samawati wal ard wa السجود بالحال وإن من شيء إلا يسبح بحمده yàlla بالحال يلا kon nit نيت موي ma جاخال ndax lu nekk rek lu nekk rek fa ma la tegoon su ma ñëwee fekk la fa ci waxin waaye nit daal mooy ki ma jaaxal moom su ma ñëwee dinaa fekk mu mu mu jóge fa dem feneen wuti leneen bàyyi ma fi man yàlla ba ci euh, li ñuy tudde énergie énergie moo di ab taaqa énergie moo yore àdduna léegi na xam a jekk masul dañ di ko yor waaye suñu demee ba defee ne benn war na jeex rek ba nit ñi war a jaaxle fan la ñu luñu wara mëna jagalé seen dundu pour évolution mëna am développement mëna am sur le plan industriel sur le plan euh, matériel suñu démé ba jaaxle rek yalla indi yeneen alternative mu nekk ci loxo doomu adama doomu adama sukkandiku ci mën a continuer développement bi nga xam ne moom la war a am ci société wala croissance bi nga xam ne moom la war a am ci société ñu ne nag kon su fekkee ne yàlla dafa wéet ci bind kon jullit bi moomul nit ki moomul boppam nit ci boppam waaye rawatina jullit ndax yàlla ku am yërmande la yaa ay naas dina ñëw ca kanam ci suñu conférence yaa ayyuhan naas fu ko yàlla waxee rek mu ngi waxe ci cadre li ñoo tuddee droit wala loi inter internationale ndax ñun rek nekkuñu ci àdduna bi ay jullit kese nekkul ci àdduna bi yaa ngi fekk sa mbokki katolik yaa ngi fekk ay communiste yaa ngi fekk ay athée yoo xam ne gëmuñu dara dara dara su fekkee ne danga nga ne damay téye rek sama bopp du ma duggoog ñoom yàlla nee na xamuloo lu xew yaa ngi xatal lu ma yaatal man yàlla inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu man yàlla ma bind def leen ngeen di ay tribu def ngeen di ay ethnie def ngeen di ay société ay race pour lu pourquoi ak ay couleur pour ngeen xamante su ngeen xamante mën a jariñante su ngeen jariñante adduna mën a jag mën a naat ba ba muy soob yàlla génération jóge fi yeneen génération ñëw génération bi jóge fi yeneen génération ñëw yàlla mi nga xam ne nag mooy fekke lépp te yow nit ci tuuti ngay fekke dama defe ne système système bu ñu la tëralal bu dul système bi yàlla tëral rek coow rek lay indi waaw problème rek lay indi moo tax système yi ci àdduna bi yépp léegi fayit na système yépp fayit na mu di capitalisme mu di socialisme surtout bi ñuy tuddee socialisme scientifique te yooyu yépp l'islam embrassé na ko làmb na ko mi ngi ci biir l'islam ndax capitaliste bi su dee ku mel ni Adam Smith wala Ricardo li mu lay wax moo di laisser per laisser aller laisser passer moom li muy seet moo di na na na na usine bi dox na produire usine bi na na dox na produire production bi mu taxaw fu ñu toll rek moom li muy seet moo di lan la produire ci vingt quatre heures yi mooy vingt quatre heures yitte moo di lan la usine bi génnee su dee ci biy defar oto su dee ci biy defar frigidaire su dee ci biy defar lu mu mën a doon moom daal individu bi ci boppam la jox sañ-sañ ne la noo mën a def ba jariñoo nit ki rek def ko moom capitaliste bi ñoom Saint-Simon ak Charles Fourier ñëw ay capitaliste ñoom ne euh, dañu bëgg daal ay socialiste plutôt ay socialiste ñoom ne non war nañu ko organiser ba euh, ñi nga xamee ne système bu capitalisme bi individu bi li mu ko jox ëpp na ëpp goo xam ne war nañ ko wàññi tuuti mais ki nga xam ne dafa di communiste wala cap wala wala socialiste wala socialisme scientifique ñoom it li ñu jox société bi ne état bi moo war a surveiller lépp loolu it ëpp na il faut ñu am lu ñu ci war a wàññi jéem a seet naka la ñu mën a doxale yeneen méthode wala yeneen système pour mën a am épanouissement wala mën a am développement bi ñu bëgg ñu ne nag su fekkee ne dañu dem ba nga xam ne fayit boobu am na ci système yeeg méthode yi lu fi des l'islam dañ dem na ba du complexe bu ñu am waaye dafa di ku rëy di xalaatkat bu rëy di bindkat bu rëy dëgg sax yàlla jiitu na wax ko ko wax ko inna hada al qurana yahdi lillati hiya aqwam nee na al quran ngeen bañ ko appliquer mooy tax du ngeen xam li ci nekk waaye méthode yépp système yépp bi ci gën moo di al quran ndax man yàlla maa bind de répartition des biens bi nga xam ne moom la lislaam wax ci zakat su fekkoon ne dañ koy doxal muy omoon di zak azaka bi ñu war a joxe su fekkoon ne dañ koy doxale tey ci Sénégal ni ñu ko war a doxale capitaliste yi di ko doxale noonu jullit bi di ko doxale noonu képp koo xam ne war nga joxe zakat commerçant bi di ko doxale noonu baykat bi di ko doxale noonu sàmmkat bi di ko doxale noonu Maodo Sy mi di ko doxale noonu El Hadji Mansour Mbaye di ko doxale noonu ku ci nekk mille francs boo denc mille francs boo denc ci banque bi ren ba woon génnal vingt cinq francs joxe ko génneel vers vingt cinq franc joxe ko tabarakallahu euh, ki nga xam ne dafay def commerce yi zakatu tija urudu tijarati ki nga xam ne day def commerce at mu jot suñu nee tam xarit ñëw na at mu bees mi ñëw na mu seet évaluer li nga xam ne moo nekk ci magasin bi wala moo nekk ci boutique bi boole capital ba nga xam ne ma nga nekk ci banque ba boole leen tàppe leen génne la ci azaka industriel bi def ko kon problème dana dal di néew léegi ci Sénégal kon ñi jóge Mauritanie rapatriés yi jóge Mauritanie wala ñi ñu déporté ci kaw doole waaw ci kaw doole dal ci seen kaw jël seeni bien saisir seeni bien dàq leen kon ku ci ñëw doo jooy ndax duñ ko bàyyee gouvernement bi rek nañoo ko war a féetewoo dañuy yëg ni ku ci nekk am nga ci une partie de responsabilité te doxal nga ko kon insertion réinsertion boobu nga xam ne président de la république joxe na ndigal ci def ko rien que pour le maîtrise le maîtriser, ak li nga xam ne ay chômeurs lañu jàng ba génn yore si ay diplôme yore lu nekk wala nga jàng artisan nekk un artisan affaire artisanal nga jàng ko dem village artisanal ba am métier ñëw toog di xoole di xool sa ndey mu di la xool ngay xool sa baay mu di la xool su fekkoon ne azaka yi laa ne méthode wala système bi l'islam tëral génne nañ ko kon problème boobu dafay daal di jogi ci aduna ndax dem na ba ci wab ni sabil ba ci wab ni sabil ibnu sabil yàlla nee na képp koo fekk ci mbedd mi na nekk ibnul bayt إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله مولانا نوى ليس على حب بلا وتابعا سنة الموت loolu nag su fekkoon ne euh, ko lislaam tërale ak ni ko lislaam dañu ko société àdduna doxale ko kon benn problème du am ci kaw ndax rek ay principe la la la recommandation la sax ndax diine pour muy am sens ñaar rek ko seq ifaal aw la tafaal defal wala bul def te loolu mooy épreuve bi nga xam ne mooy épreuve wala test su ngeen su leen neexee bi yàlla passé paaseloo sayiduna aadam ci aljanna فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة fa takuna min alzalimin euh, yàlla nee na aadama jox naa la sañ-sañu sañ-sañu liberté bu yaatu ci lu la soob ci aljanna rek fruit boo fi gis teraanga bu ñu fiy tudde teraanga te ñu mën ko jariñoo jëlal jariñoo waaye nag bàyyil ma fi garab gile bàyyil ma fi garab gile wala taqraba hadihi shajara kon boog jox na ko liberté waaye tënk na ko kon boog jox na ko liberté waaye jox na ko responsabilité ndax ki la ne defal lii waaye bul def lii du liberté absolue joxu la liberté bu yaatu boo xam ne da ciy dëgg def lu la neex waaye nee na ko defal lekkal lii yépp waaye lii moom bu ci sa xalaat jëm kon boog jox na ko sañ-sañ waaye dalli na ko tënk ci sàcc kula wala kula lamar